jaajëfal alxaaji Oustaz Mbacke Sylla mi nekkoon ci jataay bi almisbaax ñaanal ko tawfiix suuturaak ci ràng ak poche def dara tabarakallahu noog ndaw ñi ci réunion ñoog ndaw ñi ci séminaire ñoog ndaw ñi ba toll ci tànn tànn nag ñi nga xam ne ñoom lañu yaakaar a teg tâche yi ñuy waxtaana ci seen loxo ci seen loos ci seen bopp ñu xam ne danañu ànd jubbantiwaat pénc bi ba yi ci naqari nit ñi naqari ci yàlla yépp jóg ci ñu tolloon ci tànn ñu indi démb tànneef bu am solo sallallahu alayhi wa moo tànn ku ñu wax Seydina Ali jox ko taas bu tol ni ubbi xaybar la na ca moom ci njàmbaar tax la na ca moom ci xam-xam la na ca moom ci doylu la na ci moom ci imaan la na ci moom ci dëgër yonent bi bëggoon ndaw ñépp roy kooku noonu Seydina Ali sidna ali yonent bi moo ko yar këram la yaroo këram la yaroo ba nim ko may jabar doon goroom tànnal Fatima jëkkër ju tudd Ali ca la na ca moom ci ay maharaat ca na ca moom ci xibra ca ca moom ci doyloog dérëk ak njàmbaar ndaw ñu baree bare bare bu fekkee jàng nañ dund kooku sidna aliyun karamala wajha royu waaye ngi noonu boo xam ne ku ci roy bu yàlla subhanahu wa di tànn tànn la bu yonent bu doon tànn tànn la te pourtant amoon na ngànt ndax bi ñu ñëwee dañu ne yonent bi ah aliyu kat dafa wànnent te sunu góor ga xaaj Ibrahima ma daan la wax ne ku am bët boo wànnentee wànnentewu day metti waaw wànnentu noo koy rek la jig ndax bët yi dafa sew waaw waaye ku am bët moom ba wànnentee wànnentewu day métti waaye teewul rek alayhi salaatu ne dem leen ngeen indi ko ndekete kon léeg-léeg liggéey bi am koo ci xam ne suñu xel mën na koo xeeb wala suñuy xalaat ndekete ku ko jàppale mu dem sidna ali yonent bi woolu ko mu ñëw mu léemul ko wanti wànnent wa wànnent wa wér ca saasa mu yëkkati drapeau ba jox ko dégg liggéey bu mu liggéey xaybar radiyallahu taala anhu mbokk loolu benn la ci ci tànn gi bu ñaareel bi alxuraanul karim joxoñ na tànn alquranul karim téere bii nga xam ne suñu ko xamoon xam li ci nekk te jox ko wàllam ak cëram ci pénc mi yi ñu nekk yépp ñu jóg ci waaw suñu xamoon alquran xam li ci nekk bañ a complexe jox ko pénc mi nëgë ni jóg nañ fii nu nekk malheureusement danoo defe ne alquran téere barkeelu la Oustaz Tahirou Fall ca ca Pire nee na dañoo defe ne alxuraan téere barkeelu la moo tax ku ne koy barkeeloo ndekete ñëwu fii pour barkeelu dafa am leneen lu ko tax a jóg loolu ko tax jóg nag léeg-léeg am mbooloo na ci penc mi di ko empêché ba du def li ko war taxoon a jóg waaw ñu defe ne ndeysaan dongo yi amul pexe xale yi amul pexe jàngalekat yi amul pexe ñoo ca war a nekk ñu bàyyi ko nii rek mu nekk informel waaw rek ndeysaan avant l'indépendance pendant l'indépendance ba fii nu toog ñu yor ko noonu rek waaw kër goo dem ma nga fa oto boo dugg ma nga ca te tabaarakallaahu rajo boo taal ña nga ca tele boo taal ña nga ca waaye lépp bar pour barkeeloo ko waaw bu ñu amee dëj jëli day ndeysaan léegi bu ñu tudd doom sax jëli kuy sañ ci jëli waaye yooyu lañ ci xam ndax dañ ko bëgg a barkeeloo ndekete moom moom alxuraan ñëwutoon pour du ko barkeeloo am na barke nag lool waaw waaye jàpp ne dañ ko war a barkeeloo ba far mu fab bi mu fab bi mission bi jëlee ko ci orientation yi war a indi indi ko ci ay barkeelu ndaw ñi yéen ñi ci saal bi yàlla bu mu leen dal démb nag am na ñetti gan ñu jigéen joxewuñu seen tur waaye dañoo bëgg ñaan magal gone yi <laughs> waaw dañoo bëgg ñaan ñu may leen ñu dugg ci saal bi ñu magal gone yi waaw wax naa ñoom alaaji ñang ne leen dañ leen dugal eh, tabarakallahu ñu dugg si ci saal bi <coughs> alxuraan ci barab yu bari te yonent ya ca mursaloona ya mu ñuy wan wan ne tànn daa war a am acca ku mel ni Muusa alayhi salaam dafa am lu xewoon ci banu Israel moo di benn buur bu ñu wax Firawna benn buur bu ñu firaw na bi nga xamee ne mbokki yuusufa ya ñëw nañu Égypte mu jàpp ni ñii duñu ay égyptien d'origine ñii ay kanaaniyuuna lañu ak i kaladaaniyuuna lu muy liggéeylu ñooñ la koy liggéeyloo waaw bu noosee ak récolter liggéey ba jotee mu waa égyptien yi loolu ñu daan tuddee apartheid te Nelson Mandela jaaroon ca loolu la la Firawna daan def ca pénc ma bi sunu borom bëggee loolu jóg bi sunu borom bëggee noggutu boobu jóg ca pénc ma sunu borom dafa xool jigéen ñi gisu ci ku war a mën dindi jafeñ jafeñ bii ku war a indi changement sunu boroom xool góor ñi paayeeg yooyu gisu ci paa bu pare pour dindi ndax danañu wax ne régime léeg-léeg day miinanteeg paa yi ak maire yi ñoom miinanteeg régime dafa leen ay yomb waaye xale yi ñoom miinanteeg régime yomb leen sunu borom kon xool na jigéen ñi xool na paa yi xool na maire yi xool na jànq ji mu xool waxambaane yi jamono jooju amu ci ku mën a ku mën a def tâche bi muy bëgg a santaane allahu akbar waaw message su ñoom yaa naa maar ba woon ndeysaan yal na yàlla sàmm leen alayhi salaatu wasalaam alxuraan wàcc di ko jàngal ne bi yàlla xoolee ñu ñëpp mu xam ne régime firaw na bi ñi xam firaw na xam ay pexeem xam ay ngànnaayam ragal nañ ko ragal goo xam ne comme na ci woon jógal danaan ko man seetal keneen waaw <laughs> suñu mbokk moom nga xam ne tabaarkalla day tooñ rek ñu koy wax Kocca dafay def léeg lekk <laughs> kaay ma yónni la yeman xawma kaay dem siin nu mu koy defee noonu rek tabaarkalla <laughs> waaye daal bu yàlla tànnoon ci nit ñi kenn boo muy tuut du dem waaye ni yàlla def mbokk yi mooy dafa indi juddu bu bees liir boo xam ne liir boo xam ne régime ba mooñagu ko kooku la yàlla indi kooku nag mooy Moussa xam ngeen ci la ëpp li ci xam yàlla Moussa la tànn pour mission wu folli na te yàlla du ko reyal boppam waaw moo tax ba mu ko tànnee ba yónni ko yónent ba am lu fa Muusaa doxale ne ko dama laa bëgg a gis sunu boroom wan ko ne mbir mi du nga gis maag ma gis la mbir mi du gisante sunu waajur waa xaaja Abdul Aziz Al Amin daana wax ne ku ñëw ci xadaraam ñaan ko wird mu may la ko nee na bu la neexee nga ne ko ilal liqaa waaw luy loolu mu ne bu la neexee ngeen bañ a gisanteeti ba baa ngeen tëje ci kanam yonent ba maanaam gise gi soo seetloo ci pénc bi am na ñu gisul sëñ kër Si ñu ngi koy bëgg ba démb wala ba tey jii sax ñu taxaw laaj ko mustarshiduna yëg wala mustarshidaati am na ñoo xam ne gisuñu sëñ falu ba léegi am na ñoo xam ne gisuñu si Cheikh Mbacke Gaynde Fatma am na ñoo xam ne gisuñu am ñoo xam ne gisuñu jamono jii ñu nekk ñi leen gisutu ëpp ñi leen gis ñi leen gis par benn benn la ñi leen gisul ay téeméeri téeméer lañ ay junni junni kon yàlla wan Moussa ne ko problème bi du problème mu gis suñu Cheikh Ahmad Tidiane si al maktum wa ma zala maktuman te ngeen di gis bët bu set ngeen am ci internet bi wax ju ñu teg mu firi jamono waaw wax ju ñu teg mu firi jamono barki démb bi ñu dugalee benn vidéo buy wax ci yàlla moom asamaan ak suuf mu ne nit ñi ragal malaaka mu ne waaye yàlla bu ko neexee mu yebal benn virus bët du tege ci moom mu def lu malaaka dul def ba mu koy wax soriwul 1997 boo ko taqaleeg lii xew ci siin te tàmbalee tasaaroo di ñëw ci àdduna si ah walillahi ma fi samawati ma fi l ardi waaw yàlla moom yëfi rahmatullahi alayhi wa radi anhu sëriñ cheikh moo tax bi Moussa jëlee mission bi ne yàlla dama laa bëgg gis sunu borom ne ko inistafaytuka ala nnaas bi risalati wa bi kalaami mu ne Serigne Cheikh moomu dégg naa ñu ne dañoo ñëw ne ko diw dey lam doon liggéey dafa yàqu mu yëkkati lu am solo ci xaalis fukki million takk jox wa nit ka ne ko demal yit ko ba mu jël seen ko ah moom kay moom fi ne yépp am baax na defaraat na ba noppi sëñ Cheikh takkaat fukki million ne ko demal yët ko waaye bi yooyu tegee ci loxol ki nga xam ne moom la ci teg te mosuñoo gisante daf ne kiy indi xaalis bi jëlal ma rendez-vous sëñ dama ko bëgg gis sëñ Cheikh ne ko ëpp naa def ndeysaan ëpp naa def gisante bi du du du yëf yi gisante bi du yëf yi Euh, na ma baal ma misaal suñu Abdourahman Mbàkke alxalifa li daarul xuddus suñu Abdourahman Mbàkke ñu ko wax euh, suñu abdu Xaar waaw damay waxtaan ci rajo Dunya at ya ma fa nekk yépp teg ci yeneen at bu tabaski jotee damay ñëw ci kër gi ñu ne ma daa am ku fi indi am xar waaw muy wër ku mu doon mënuma koo xam ba muy diir bu yàgg benn bis ma toog ci saal bi séen ko muy wàcc xar mi bi mu ñëwee ba may wax ci wàllu gis wàllu gis mu ne ma sunu sunu jëflante ak nit ak nit bu ko bu ko gisee yàqut du ko defar waaw loolu misaal la mu am solo loolu misaal la mu am solo njàngalee ko indi yàlla bi ko musaan dama laa ba gis daf na ko inistafaytuka ala nnaasi bi risalaati wa bi kalaami Musaa mu naa li mu ne ko li nga am moo ëpp gis ma li ma la jox mu ëpp gis ma c'est-à-dire gise gi jëru ko loolu rek la bëgg a wax ndi gis yàlla moom leneen la inistafaytuka ala nnaas mu ne ko Égypte ni mu toll ma tànn la tànn gi ma la tànn na doy sëkk ma tànn la bi risaalaati wa bi kalaami Musa mu ne ko labbeek mu ne ko faqus maa aataytuka yemal ci li ma la jox wa kun mina shaakiriin te sant ma yemal ci li ma la jox te sant ma ne beneen principe bu tànn ngoo ginnaaw bi sallallahu alayhi wa tànnee ali yàllaa ngi nii tànn Moussa pour mission wu folli firawna daaneel régime ba changé yépp tabarakallahu waaye incha allah su ma duggee ci eh, beneen formation bu ñu jéem a defal ndaw ñi dana dana ci feeñ ne luwaay man di nekk dañ la cay former tànn la ca ndaw ñaa ngi pare incha allah ñenn ñi tàmbal nañu bëgg mel ni Seydina Ali ñenn ñi tàmbal nañu bëgg a mel ni seyd naa musa lu tax ndax li leen di xaar ci taas ci penc mi ñu mën koo def waaw ngoog moo tax waxoon na ko fene nit wa an axtartuka fastami lima yuuxa dama laa tànn na am aar d'écoute déglu baax li ma lay wax ndeysaan am na feneen fu ne ko wastanaatuka li nafsi maa la formeel sama bopp ah waaw maa la jëlee sa kër baay ak sa yaay yóbbu la palais te palais yow lañ doon wër pour rey la ma ma yóbbu la palais waaw nga nàmpe pale ba fer màgge pale duggu jardin duggu école jàng ba sam njàng jeex wala boog dugg daara <laughs> dugg daara jàng ba sam njàng jeex waaw ma door laa jox mission bi lay ndeysaan wax na ku la am solo kon tànn ngoo ko waaye mbokk yi ci tànn tànn nañ jënn jigéen mu di mariyam nga xam ne bàqara ba naas yi wenn turu jigéen ci nekk moom moom yi bàqara ba naas yi amul nogay amul roqayatu baqara ba amul xadijatu amul ummu kalsum amul maymunatu baqara ba naasi amul soxna ummu mukk waaw baqara ba amul soxna kumba jóob baqara ba <laughs> waaw amul soxna sala jang baqara ba wenn tuuru jigéen ci nekk mariama la waaw bu doon xaj ibrahima sax mu ne ba ma fay gëj Mariama sunu borom daf ko tànn ndax daa am lum doon def lu ci pénc mi sunu borom daa am lum doon def lu ci pénc mi mooy dafa bëgg a bind nit ku amul baay waaw dafa bëgg a bind moom sunu borom nit ku amul baay hmm? te jigéen ñépp mënuñu ko mu xool jamono jooju kenn rekk ko fa man mooy Maryama Maryama mi nga xam ne yaayam yaayam góor la sàkku woon yàlla mi bëgg mottuli yéene daa di tànn Maryama daa di koy may doom ju amul baay pinc maa ngi ciy coow ba dimb penc maa ngi ci coow ba dimb waaye daal beneen tànn ngoog moo tax kuy wuti jabar ñu bëgg nga tànn léegi nag penc mi nañ daan tànne mooy yaay moo daan tànn waaye yaay yi commercialisé nañu sëy yi ba léegi daanaka yaay mënatut tànn waaw ndax yaay yi ni ñuy tànne léegi mooy ne nogay tànn rek yebal la ci koo xam ne yaayam am na wala yaayam xam ne teraanga wala yaayam nangam waaye loolu bu lalee sëy bi rek duñ àgg duñ sori bu njëkk yaay day tànn doomi jeeg boo xam ne musta yenu lekkatuk fay musta xuloo ci pénc mi waaw mu dem ne ko demal ca doomi diw ja Omar ibnu Xataab daa masa tere ñi nga xam ne dañuy jaay soow te duñ jaay soow piir dañuy wayal ba noppi yokk ndox ca soow ma dem jaayi ñi seen biir yi daw ñi seen biir yi gurguri Omar ibn Khattab di xutba ca jàkka ja tere ko ba mu ko teree am na gone gu jigéen gu ratt li mu ratt feesul karaaf bi mu ne yaayam ah nag yi de tey dañoo gàntu karaaf bi fiisut yaayi xale bu jigéen bi ne ko demal ca ndaala nga tànq ca lu tollu nangam sotti ko ci yëngal ko doora dem xale bi ne ko ay yaay nuy jaay soow di ci sokk sottim ndox loolu de Omar aay ba mu la nu xutba àjjuma ji ñu génn yaay ji ne ko ba ma waar de man ngeen a waaraate lool ak li ngay goog li ñuy wax gone jigéen ci kër yi ndeysaan ñu leen tudd ibaadu ak seen bàjjen yeeg seen tànt yeeg seen yaay yi pour yëkkatee kàddu ñu leen na fi yem waaw ndeysaan cay bàjjen xale ba daa di wax yaayam loolu yaayam na ko ma lu suñ yoon ci Omar na occupé jàkkaam ak xutbaam dimbale nu de xale ba ne ko ay yaay bu nu Omar gisutit borom Omaram nuy gis te wax ji Omar doon wax du ay waxi boppam waxi boromam la information boobu bi mu agsee ci Omar mu ne xale bu jigéen boobu su ma tolloon ci denc maa koy denc bu sama doom tolloon ci denc moo koy denc ana sama sët bi ñu ne ko mi ngi nii Omar ibnu Abdul Aziz mu ne ah, mu ne ko demal nga jël ko wala boog euh, demal nga jël ko am na kum ca yebal daal su ma jumul kooka dem jël ko am ca Omar ibnu Abdul Aziz kon Abdul Aziz la la la yebal ne ko demal nga denc ko soxna su mel nii koo ko dégg da nga a dem mu ne eh, suñ penc bu ñu meloon noonu suñ penc bi bu meloon noonu am yu bare bari yu soppeeku te nun la meloon démb nag démb dañ daan dañ daan euh, séentu ci nit dara dénk ko sa doom mbaa nga dem takk ci ca moom ala kulli xaal mbokk yi maa ngi ci sunu jataay bi maa ndaw ñi maa ngi ci euh, séminaire bi jeex na wala boog jeexagul waaye ñoo ngi ci jikko ci di ko tëj toll ci ndaw ñi dañ leen a war a tànn ma misaal ci Seydina Ali misaal ci Seydina Moussa maa ngi ci sayyidatuna Maryama wa is qaalatil malaaikatu yaa Maryam inna laaha stafaaki wa tahharaki wa stafaaki ala nisaa'il aalamiina ndeysaan Maryama mu naa mun a ko am na lu xew lu xew mu ne ko inna laaha stafaaki yàllaa la tànn allahu akbar yow la yàlla tànn pour nga am doom ju amul baay yow la yàlla tànn mu Mariama yaa am lu rëy waaye tànneef gi it dafa nekk dañ koo yar ndax Zakaria moo ko yar ni ñu yare jigéen la ko yare sol lu jot sol lu fatt sol lu yaatu dégg ko ci alxuraan fu ne alxuraan wax na ko fa ahsanat farjaha yaa Mariamu inna la astafaaki wa taharaki wa astafaaki ala nisaa'il aalamina waaw la tànn wa taharaki moo la préparé wastafaaki moo la defal formation ala nisaa'il aalamiina mbokk yi bind bi jeexut maa ngi ci tànn ba léegi ixtiyaaru sawil ahliya bind bi jeexut incha allah bu nu yàlla may dund ba ëllëg yàlla dund ba ëllëg te weesu ko nu ñëw ci li nga xam ne moo ci tege bu leen zappe bu leen toxal seen ak déglu jërë ngeen jëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo jërëjëf sponsor mii nga xam ne mooy C3S toog rek bul dem benn yoon incha allah yéen ñi demoon dellu si leen yéen ñëwagut ñëw leen sunu mbokk yi xëy ci xibaar yaak nii taxaw yoon seen kayit bëggal na na firim fàjjal xibaar tubaab firim fàjjaloon ko ci wolof ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu sponsor mii yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poste dara wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu